waaw jaa ngeen jëf gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax ñu ngi ak euh, Moustapha Mbaye eh Moustapha. Mhm. sama kaas boobu. alaajaas. naam. eh yow fàtte naa tegal nga ma sama kaas bi fii sax sëñ man gisuma ko woon xaaral ma jël naka mu nag yaa ngi ci jàmm. waaw sant alhamdulilah. lu bees nag. waaw ñoo ngi nii rek ñoo ngi nii rek di siyaar ñëpp. mais dëkk bi tàng na de tang na trop mais bon alhamdulilah mo tangay mom lu mu métti métti moo gën sedday bi as. mo gën sedd tu penses. ay <laughs> tangay gën sedd de. ah yow lolou nga foog. mom la foog de. wa tay na dama bëggoon ñu waxtaan ci actualité sénégalaise bi. Mhm. lu ci gëna fess moy mooy gay ak problème bu mu am ak euh, wa Paris. Mhm. gars di acharné wu ci kawam ci baña sol maillot LGBT lolou nokay koy bon déjà avant tout euh, di wax ni man Gana euh, il a mon soutien. De mhm. normalement sénégalais yëpp jullit yëpp dañ waroon am euh, Gana dafa waroon am seen soutien. Mhm. parce que li mu def nii yombul. Mhm. am na si ñoo xamante ne tey surtout si milieu bu mu nekk duñu taluñu sax seen diine bay bay bay tal di bañ a dooleel góor jigéen. moom contrat bi ko lié ak Paris Saint-Germain may na ko mu bañ sol couleur góor jigéen may na ko mu bañ leen dooleel. Mhm. donc c'est pour ça que je suis là. Ce que ñun mhm. en tout cas même bu féké tubab bi fay mhm. tubab bi conditionné c'est que nit ku ñuul mo wara parce que nous bu nit ku ñuul respecter bopom tubab dina ko mais nit ku ñuul né ñun julliti respecter wuñ suñu bop motax tubab le lu ko neex mu def lo ñun tubab bi ñu war wax ni ñu

voilà déjà Nous, nga ñu forcer mais en parallèle ñun suñu agenda agenda l'agenda li ñuy France de. yow yow gëm li la mais pour c'est que nag xam nga nga lay équité. Mhm. Euh, injustice parce que du moment que par exemple en tant que yow homosexuel. Mhm. am nga droit vivre am nga droit def lu la neex. Mhm. mais man mi nga xamantene man hétéro laa. man amna droit vivre amna droit def lu ma neex am droit ne sey vices yow man anduma ci neexuma yow mhm. samay vices àndoo ci neexuma mais api ku nek dundu mais au nom de quoi man la wara ñew taxaw di sol ay couleur euh lobby lobby homosexuel. Mhm. loolu motax tax gaay ne gars dañ ñu yëpp rek gis nga waxuma la sax mbedd bi mais gis nga cour bi taxawal fele nga kabaar. bul génn kër gi de taxawal fële si cour bi rek nga kàbbaar ñu oo police billaay voisin ñooy njëkk woo police ne nit kii mi ngi taxaw fii di julli di wax ay allahu akbar te terroriste lañ lay jiiñ soo moytu moom lañ lay jiiñ fii nii boo fi amee ñaari jabar prison nga jëm mooy polygamie waaw dañ ko fiy tere c'est la loi qui interdit polygamie boo amoon jabar Sénégal ñëwaat fii France takk fii jabar ñuy dox ba xam ne yow naka de waxuma sax France nga am ñaari jabar mais am nga jabar feneen fu dul

lan ne moo ko mais li muy xeex si homosexuel leeg franc yi loolu rek a ko dugal prison. mais moom maître waar la amul problème. alibi la rek gis nga li ko tëjee noonu. Hmm. ay diffamation ay wax yu dañoo xam ko prétexte quoi. Hmm, prétexte rek la ñuy mais ñoo la gën a ne Cheikh Oumar Diagne c'est parce que arrangé wu des des des xeex agenda lobby homosexuel des des day da leen di kii day def ay révélation day feeñal dégg y a deux trois jours si une pare seen réunion homosexuelle biir Sénégal. biir Sénégal Sénégal. donc moi lay wan ne instant le mal il est profond li naan ay xaw ma liy raam si ñag bi lay si ñag ba la jëm ak yooyu <laughs> rom na ñag ba instant bi président bi tamit temps il est dalaloon na ben góor jigéen bu mag ci palais ba. moom yàgg na dalal moom toutes les façons 2012 waxoon naa ko ex maire Paris bi. Hum. homme homosexuel bu pouvez confirmé moom waaw moom moo ñëwoon ànd ak ma Macky Sall si si campagne 2012 bi ñun boobu Sénégal ñu ngi naan Abdoulaye Wade bu mu fi toog du fi teg doomam ba on a même pas regardé ce qui se passe à côté mais ce qui s'est passé à côté mooy homosexuels yi ñoom ñoo fal Macky Sall moo lay wan ne moo moo tax suñu assemblée bi gis nga gis nga suñu assemblée bi fi xew mhm. loi homosexuel euh, loi contre euh, homosexualité bi wax coow lay bëri rek mais du jàll fii ak Macky mu ngi fa fii ak Macky mi ngi fa fii ak ñi nga am assemblée bii du jàll

mu am liberté am na man du ma sol t-shirt même bu nekk doon t-shirt LGBT. nga ne man solo lii so neexuma du ma ko sol. lool loolu laa wax sànq ma ne au nom de quoi nga ñi nga xamante ne ñoom ils sont au nom de quoi lañ nang lañ leen war a nangu bii su homosexualité bi au nom de quoi te yaa ngi wax jàkk yi naan sorol di kii mais xam nga ne nodd sax du génn te seen cloche yi dañ koy dégg de bu bu fi di jotoon léegi-léegi nga dégg teng teng bi foo toll di ko dégg mais jàkk ji nodd bi du génn. suy génn gars yi waa waa waa waa euh, mairie wala préfecture ñëw di tëj jàkk ji nodd bi du génn le midi bu la fi est-ce que gis nga interview bi waroon na doon midi ñu taxaw si watu église bi oh, man kañ dama koy dégg teng teng foo toll di ko dégg mënoo ci dara waaw léegi ñoom ana liberté bu ñuy wax kon ñu ngi noonu te église yi ñoom seen bopp ñoom duñ ci dem <laughs> léegi soo waxee sax affaire église dañ naan ñoom loolu xam nga c'est la tradition française église beeg yooyu noonu quoi duñ ci dem

seen intérêt la ñom mais intérêt wu Sénégal yépp la xam nga Gana Gueye tey jii nii mom euh, c'est un message fort qu'il a lancé. parce que bu mhm. son si Gana Gana rek mom xam nga affaire euh, affaire homosexuelle day yàgg rek mais du ci dugg mais tay jii nii bu défé li il lance un message fort pour euh, ay petit frère am xam nga génération future bi ñu wara xamné ñom tam li waru ci waru ñu ci dugg donc il est en train de de de de lancer un message pour son pays donc gars dañ ko wara jappalé wa légui lu ñu ne ñom ku bokul ci euh, promouvoir agenda LGBT bi homophobe nga quoi. waaw mais lañ ko homophobe mais homophobe <laughs> eh homophobe et je le revendique Wa yow ah question homophobe la sama un nekk si mais lan. au nom de quoi kon sol que LGBT bi mën Paris. non non mënuñu dara parce que contrat permettre ko mu mu mu mu sol mu mais def Diallo ren aussi parce que donc dans tous les cas donc est ce que li mënul répercuté wu carrière carrière parce que tey bu demee euh, bu match laa la Paris mais supporters yi mën nañ ko nekk di ko déstabiliser di ko yuuxoo yeeg lu nekk ah lu mënte xaw na xam ne àdduna moom lépp loo am te amoo yàlla amoo dara mhm. lépp loo ñàkk te am yàlla am nga lépp mhm. waaw loolu daal la ñu am ci luñ koy wax léegi ñu waxtaanee législative mhm. léegi bu ñuy njëkkee moom mooy euh, liste Yewwi Askan Wi nga xamante ni il risque d'être invalidé parce que nee nañ respecté wuñ parité bi bi nga yëgee coow li yow noo ko jàngatee bon après man suivre na un peu euh, média bi mais en fait li ma si jàngat moy man je trouve que waa yeewi askan bi. Mhm. ñom ñom sen bop ñom ñom mhm. ñoo def sen propre erreur. lo tax parce que xam nga yow bu fekkante ne dañ ne dañ wara respecter euh, parité bi. Mhm. au départ suma jumul Dakar sept députés lañ waroon am. sept députés la wa Dakar. sept députés yi waa askan dañ dañ ne woon su jumul Pastef da ci amone trois. Mm-hmm. Euh, waa taxawu Dakar mooy ñoom Khalifa Sall. Mm-hmm. am si trois. Mm-hmm. pire am si benn suma ma jumoo. ca séddoo ba la comme ni ngay xale yi di waxee. <laughs> ak waa wallu xaw ma. waaw léegi après ba waa wallu ñëwee. waaw ñu ne wallu day am benn. léegi waa Pastef wàññi seen benn jox waa wallu. jox waa wallu Pastef léegi ñaar la am. <laughs> léegi problème bi mooy waa wallu. ñoom bi ñu leen jox. Uh-huh. ñoom dañ ne ñoom ñoom góor lay doon. <laughs> yaa ngi comprendre mhm. nee na waa taxawu dakaar ñoom Khalifa Sall mhm. ñoom ñoom tamit ñoom ñoom ñetti góor lañ bëggoon andi mhm. ñu leen leen nag yaa xayti yéen ñi kon ko yéen ñeena fi ëppale instant bi ñetti ngeen am xanaa dugal leen jigéen ñu ngeen bàyyi waa wàllu andi góor ñu def ñaari góor ak benn jigéen waaw ñu ne si noon di kii kii man nag gis nga parfois euh, wax ji mun na bañ a neex gis nga foofu bi ñu fa tollee euh, Khalifa Sall waaw dafa waroon jël décision tranchée ko xam nga ne góor yi eh nii wax nii wax nii lay demee wàññi bi xaw ma xaw paala la waroon wàññi la waroon. maire maire point E. xam nga gis na nag euh, njiit boo ko nekkee. Mhm. Euh, am na foo xam ne fa tollee boo waree tranché taper sur la table il faut le faire. Mhm. gis nga layam-layam yi bii saa waay dafa doy. te nañu honnête ak sénégalais yi yaa ngi comprendre. media mm. bi muy gën di wax. Euh, man je pense que il avait pas la bonne information parce que man kaa ma la une affaire nag gis na ñoom seen une yeewu seen yeewi askan bi non noonu mhm. ñaari nit la xamante ne euh, je je donnerai ma main à couper quoi mhm. muy Barthélemy Dias ak Ousmane Sonko mais ñeneen ñi nag en tout cas man ñe bon ñeneen ñi tu leur fais pas confiance c'est pas que je les fais pas très confiance mais munu ma positionné wu trop man en tout cas ñaar ñii moom man wóor na ma ils sont honnêtes. mais Khalifa Sall non bon honnête non. mais cest à dire munu c'est à dire comment on a expliquer munu la à 100% que man mun def les yeux fermés que Khalifa Sall il est il est il est honnête Je ne sais pas ko que je waaw et mais man ñaar ñi convaincre yow daal Khalifa Sall daal da nga jàpp ne daal. dafa dafa dafa sengoriser quoi dafa c'est c'est la sengorisation quoi c'est c'est le fils de Senghor. dafa dafa sedd de trop xam nga. waaw non ak France Afrique bi quoi. waaw non xam nga gis nga as. Euh, nit nit bu nekk. waaw nit kenn moom ko. nit bu nekk ak yëg-yëgam ak ressenti waaw nit bu nekk ak li muy gis la mu siy jàngat ak la mu siy analyser man li ma gis si seen doxalin. Mhm. ak par rapport ak seen parcours surtout. Mhm. Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz man la xamantene les yeux fermés man ni woluna naa à 100% pour cent ña sa des nag du ma ne wóoluwuma len de. Mm. mais man je je laisse bénéfice du doute ma ngi xaar xol fa ba fu jëm parce que nak dañ fi yàgg am ay surprise de. non yow Khalifa Sall yow bénéfice du doute bi ngay am ci mom ci par rapport à quoi lan la. non gis nga ñaari affaire waaw deuxième bi tranché parce que problème que mhm. Khalifa tranché gars duñ ko tranché ñu jox Fall vous koy jox mu dem déposé du du am mais deuxième premier bi mhm. gis nga élection élection maire yi passé mhm. a yow entre soham ak ben mom dégg ne soxam la de pour pour pour pour pour investir ko loolu mooy loolu bu teg au nom de quoi Barthélemy Dias kan est-ce que est-ce que foogul ne saxam la gën contrôler que Barthélemy Dias maanaam saxam moo gën a quoi affaire nga Barth dafa tàng ma la moo tax ma honnête ak sénégalais yi gis nga ku si nekk xam ne ne instant boobu noonu kuy ëppoon fayda taxaw ak Dakar

man képp koo xamante ne da nga demoon jàppale ji sa Seck <laughs> non man tant problème ak man. Mhm. xam nga léegi nii nag ñëw nañ créé nañ seen askan wi li si Sonko bokk. waaw li si Sonko bokk. Mhm. moo tax sax man ma leen di xaw a jox crédibilité. Mhm. ndax Sonko mais gis nga bu si Sonko bokkul woon ñoom ak yeneen coalition yi laa yemale. est-ce que résultat yi sax notoriété Ousmane Sonko feeñu ci. kese nag. parce que damay dégg gars yi ñu naan ñu nekk maire ñu bëri Ousmane Sonko moo tax. ma ne mais mais loolu mooy dëgg gis nga nag aas. Mhm. gis nga yàlla bu jiitee li ni teg ko fi. waaw ko ñëpp nangu. Mhm. Ousmane Sonko. Mhm. maire yu bëri yi fi nekk. Ah bu du woon Ousmane Sonko ni mu bokk yeewu askan bi du ñu nekk maire. loolu ñu ko wax te nag si laay profité sax jàllale benn message gis nga am na si euh, certains maire yoo xamante ne. ils sont en de de de de refaire les mêmes pratiques. que waa benn bokk yaakaar yi fi nekkoon. mooy lan. c'est-à-dire faire trop de social xam xaliss xam on n'est pas des fanatiques. Mhm. fal gëmuñu ni rek né, askan fi fi non non non ñun kenn duñu pas mhm. gis nga dañ lay fal nga mëna liggéey ko ci yoon gaay yow. Mhm. nga sénégalais kenn Nous waaw dugg détails yi bay citer tel terme tel. telle euh, ville ou tel mer, affaire mais.

respecté wu parité. mooy lors des élections locales. waaw léegi lan la woon du yow Macky Sall da xam ay loi ak ay droit ak ay jurisprudence. yow yow maa la gën xam ne. yow xam nga Macky Sall yow kenn du la wax Macky Sall. waaye kim ko sekkal mo moo Macky xam nako. Bart du ñeexu ñebbe kenn. Wa légui, man li bëgg wax rek moy manam est-ce que yoyu war na tax ñuy rejeter liste ay kii. Euh, da nga waroon def fii jigéen def fii góor respecté wu parité bi mais est ce que duñ dem ñu ne léegi defaraat leen liste bi mu baax rek ñu dugal ko. non xam nga warul tax moo tax ñoom waa Yewwi Askan Wi nag ñoom fa leen waroon xam nga nit parfois yow bu lay sëdd si gaalu xaj yow buñ la fa fekk wala yow Macky Sall moom mi ngi jéem a ut nu mu invalider seen liste. bu leen ko may porox ndollu. pour yow ils ont prêté le flanc. moo tax nag fa laa xawee mere mere tuuti xalifa Sall. da nga jàpp ne ils ont prêté le flanc.

ñom Guy Sagna doon marche mhm. opposition bi leen nga sétan bo mu leen sétan moy wu ni gis nga ba gars ci parrainage bu ñepp jugoon tay ji ni ni élection yi dina jaar yoon parrainage dina jaar yoon. parce que Macky Sall parrainage bi mu teg ñepp xam nañ ne c'est à sa manière quoi. c'est à sa lan tax refusé ko ne ko mais mais da koy parce que moy li non li moy li nga wax sank respecté loi respecté wu règlement rapport de force la baadoola nag boo boo ko falee muy muy def yëfu baadool di andi rapport de force da ngay wàcc ak moom sax gars yi la Barthélémy gis nga Dakar di leen valider affaire bi si nii wala ci naa mais sànq yaa ngi doon wax ne euh, dañoo waroon na jàppale ñoom Guy Marius Sagna pour ñu xeex li nga xam ne moom mooy parrainage mais xam nga Sénégal yow kenn du la ko wax bu ñu fi nekkoon tey ne dañuy xeex parrainage bi damuñu élection Macky day jàpp datu élection yam traître yi yoo xam nga traître ah, ñëw nekk opposant Macky Sall. Macky gagné len mu jeex après ñu dem joxe sen baat. dem dem delluwaat ci kii. xam moo tax ndeysaan tax gis na nag. boobaa gars yi ñooy perdant. gis nga moy <laughs> moy mooy kii bu ñuy wax moo bi nu mu tuddati sax <laughs> transhumance yi. waaw mais gis nga ci transhumance la xamé né Macky Sall euh, il est vraiment nul mais politiquement quoi booy wax gars yi naan bête politique bête mom mi ngi ci mom bête mom mi ngi ci. il est bête mais mais mais mais politique bee ma jaaxal quoi. parce que yow mënu am na loo xamante nit da si war a jàngal. Mhm. yow loo ñëw Idriss Seck man ba ma ngay xam ba léegi nit gañewu ko Thiès. Mhm. coow li doon bëri rek mais nit gañewu ko Thiès. bi mu ba léegi. te lu ne xew na fi nag. Mhm. gars yi nee neen Idi moo sàcc xaalis bi ba léegi ñun dara leeruñu si. teewul waa Thiès dañ ko doon voté. xam nga Idi dem na jubawaat mag ak Ablaye Wade Ablaye da ko nax teewul waa Thiès dañ ko doon voté. lu lu ne xew na fa Thiès lenn rek moo fa xew. Thiès lu luñ ko teg si ñu dóor ko ba dóor ko si bureau de vote mooy dafa dem jébalu ji si. mooy mburu ak soow bi quoi mburu ak moo lay wan ne loolu donc donc hmm. te bi mu ko defee. rek dem ko hmm. gagné. maanaam moom dafa defar mburu ak soow moom Macky Sall waa Thiès jël suuf xapp ko ci mburu ak soow bi. dem ñu làbbali ko léegi yow def nga ko fii defaat ko fii ñu saa yoo ko defee prochaine élection ñu gagné la. waaw kon looy doy Bamba. mu ñëwaat defaat loo koy doy moom leer na ko ne élection yi ñuy jëm nii Medina. dañ koy dool ba sëlëm ko ba pare Bamba Fall boole ko ak benn arrogance bu kenn man te wax léegi moom di saaga nit ñi di tontu di attaqué nit ñi quoi moo lay wan ne gars yi ils sont pas honnêtes ñu yabaate nañ alaaji as y a quelques mois waaw du mois de février la <laughs> janvier la woon janvier local yi local yi janvier la waaw mais yow ak mois de mai bii ñu ne cinq mois lan moo fi changé quatre mois la lan moo fi changé non non lan ba nga doon wax lu baax si nit ki jékki-jékki du jour au lendemain ndax poste ministériel rek. alayaas sans fauteuil boo bëggee dégg dëgg. waaw fi ma taxaw di wax yow ni man dal Sénégal ñaar nit ñoma ma doy Barthélemy Dias <laughs> Ousmane Sonko Ousmane Sonko nak di si profité. waaw di wax yenen maire yi xol ci mom nak moy dëgg Burak ba feulé Ziguinchor. ah la muy def man mi man dama am envie dem dëkk ci Casamance. man man man man man man man maa bëgg doon Casamance. macha allah ndax Ousmane Sonko. wallaay wallaay léegi revenons sur euh, le parrainage. Mm. tu ne penses pas que Macky Sall est tombé dans dans son propre piège parce que xam nga moom normalement gars yi nañ la liste de Benno Bokk Yaakaar doit être rejetée sur toutes les du territoire parce que dañoo man, dañoo ëppale kenn. ëppale leen benn waaw. waaw léegi nag moom parrainage da ko tegoon pour di éliminer ay nit. Ah. mais moom éliminer na boppam. waaw yow yow yow yow kan rek kan. waaw moo sañ a éliminer Macky Sall biir Sénégal. ah mais xanaa waa conseil constitutionnel. dara leen dul def mais loi bi dafa wax ne ko ëppale ben yow. tu es exclu. yow yow yow yow yow yow loi Sénégal ngay wax di alaaji as bu doon fii sax bu doon France bi sax ma xalaat ne mun naa jàll <laughs> Sénégal. kon yow gëmoo ne dinañ invalider liste euh, Benno Bokk Yaakaar. dañ koy valider teg si sàccal ko mu gagné nga naan ma. mais mais mais Moustapha mais Moustapha ah. xam nga xam nga xam nga bële. vide juridique la mooy bu yeewi askan wi. parce que boobu c'était pas prévu. par par la loi. waaw mais bii dañ ko waaw. vide juridique la. waaw léegi bële moom c'est écrit noir et blanc ñu ne parrainage bi ku dugal lu ëpp wala lu manqué yow ta liste est rejetée sur toutes les l'étendue du territoire national dara leen élection locale yi bu la jàngalul ah xaw ma mais xoolal l'élection locale yi élection locale yi ñaata liste yeewi askan bi leen fi rejeté est-ce que am na buñ fi rejeté bu ben ay Kédougou ak Matam ak fu nekk. 2% Macky Sall depuis ba muy Macky Sall ba bis ba mu nekkee euh, président di organiser ay élection ba léegi. Mhm. amul ben élection buñ fi organiser te élection bi amul histoire amul ciow té mom ay te xoolam teewul ay listam chaque jour day jall ken mënu ci dara. ñom dal ils sont parfaits quoi. conseil constitutionnel bi bu basé wu ñom ñoom ba du mo leen fa tek ku la abal bët fu ko neex ngay xol fu ko neex ngay xol lolo nekk Sénégal ñun dal man dal man man man coow li coow man man man bo ba léegi man pando ga lay xar de inshallah allah rabbi man daal càppandaw ko laay. waaw léegi yow jàpp nga ne ñoom ñeme nañoo invalider yeewu askan wi au niveau de Dakar ba pare valider Macky Sall. dinañ ko jéem. ci ci ci national bi yëpp. dinañ ko jéem mais nee naa la Bart moo dul ñeexu ñebe kenn mais mun nañ ko jëm nag coow li bëri mais ba fu ñuy jëm dañ koy valider Bart gars yi euh, yeewu askan day dem de kenn mënu si dara coow lay bëri rek. waa léegi lu tax lu tax Macky Sall moom bi mu toogee ba léegi moom élection bu jotee. ñi nga xam ne ñoom la tollool doole day wax ne du bëreeg ñoom moom daal ñooñu da leen di éliminer dem jëli comme par exemple Bombardier ñëw ñu boole ko ak Balla Gaye mu ne non man yaaw jàll laay bëreel quoi moom day def pexe pour yow disqualifier la quoi yow doo bokk. gis nga ba mu naan xaw ma lan je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. waaw pourtant nag jot na ko réussir de. réussir na ko xam la moo tax parce que ña mu jàppee opposants yi ñooñu moom éliminer na ah mais Ousmane Sonko moom mooy opposant bu gën a ngand Ousmane Sonko ñëwagul bi mu koy wax waaw bi mu koy wax waaw c'est vrai boobu Sonko ñëwagul waaw ko kaloon si si ñoom Khalifa Sall ak Karim tabaskee na leen bu yàgg moom moom moom mhm. moom na leen xam kenn ko dese muy Idriss Seck te andi ko après moom ñi mu jàppee woon ay opposant ñoom réduire na à leur plus simple expression. waaye nak dafa ne yàlla mooy décider si mhm. deuxième vague bi le le sóorul woon. li naan yàlla mu moo aay si fóotu mbuur. waaw fa nga fóot mu taw. <laughs> mu taw ci kaw Ousmane Sonko taw la ci <laughs> kon Moustapha ñu rek euh, le président Ousmane Sonko bu rag au niveau de Ziguinchor. di di initiative euh, préfet Ziguinchor boobu noonu. waaw waaw naan mais moom lan la bëgg. léegi moom lan la bëgg léegi ñu génnewaat tur suñu suñu suñu résistant africain yi. ay waay andiwaat ko nooy. dugalaat tubaab bi. <laughs> non non non mais mais est ce que préfet bi du waa ji moo ko sant. président bi man de bon si sa dëkk weesuwul lii quoi. mais Moustapha préfet bi est ce que am na ci responsabilité préfet yi ay kii lañ de ay marionnette lañ de. Yo Macky Sall doon fi wax préfet yi de len invalider liste Yewwi Askan ñu ci élection locale yi paase ñuy invalider mais mais amna lo xamantene sax yow yow yow yow sa conscience lo ko mais yow naka ngay nekkee sénégalais ñu tek ño xamantene ñi suñuy mam leen ay résistant la ño doon bañ contre contre euh, bu mu jaam ñu ñu ñu defal tuddee leen turur yi nga ne nañ ko fi dindi andi ka nga xamante ne moom doon noot ñu bindat ko fa mu yóbbu ko cour suprême contesté ko mais mais Macky Sall mo koy wax mo koy wax nako ko xoolal jël yóbbal affaire bi cour suprême léegi daal man li ma jaaxal mooy damaa mas a gis yow ñoo xam ne yow tubaab bi daal tubaab yi ñëwoon sax su fekkoon ay tubaab yi baax lañ sax mu tane mais tubaab yoo xam ne dañ doon dóor nit ñi di takk nit ñi jaam hmm. coloniser nit ñi di leen toroxal nga bëgg léegi ñu bàyyi seen tur yi foofu génnee ñun suñ maam yi nga xam ne c'était des résistants waaw nekk ay héros moo lay wan ah. moo lay wan ne gis nga tubaab tubaab yu xees yi sax ñoo tane tubaab yu ñuul tubaab yu ñuul yee gën a bon tubaab yu ñuul yi mooy préfet beeg ay ñoom makeeg ne ñoom ay ay ñoom watara ay tubaab yu ñuul leen ñoo gën bon ñëpp mais fii gis fi ay réew yu ñu tuddee ay euh, africain Cheikh Amadou Bamba doo ko dégg de <laughs> mais Senghor moom waru fee ñàkk Senghor war na mën a am réew ay pareeg yooyu Senghor tubaab la di Senghor tubaab bu ñuul la quoi Senghor tubaab bu ñuul la Senghor il est noir que par sa peau tubaab bu ñuul la mhm. ñun ah, ñi nga xamante ne ñii ay panafricain lañ ay ay ay ay ay bañkat leen. ay Cheikh Anta Diop ñoom Cheikh Anta Diop ak gars yi noonu. waaw doo leen fi dégg Ousmane Sonko coow lay bëri doo ko mës a dégg France ñu bëgg ko ba abadan nag duñ ko mës a bëgg mais en tout cas moom di ko félicité. waaw di ko wax ne jox na ñëpp envie ñu dem. dëkk ji mhm. Casamance. waa Casamance nag di leen wax ne euh, sant leen yàlla. ndax am mhm. maire bu mel ni Ousmane Sonko moom ku sañoon am ko. équivalent au président. maire équivalent équivalent au président la donc xam nga di leen encouragé di wax ne yeneen maire yi. dañ mhm. jël exemple si Ousmane Sonko. te éviter nag di def les mêmes pratiques que que waa benn bokk yaakaar quoi yi fi jógee. waaw sama waa jaajëf kontaan na. waa laa jaas ñu ngi siyaar ñëpp waaye. waaw di la bëggee bu wér a wér. ok jaajëf xaaral ma àggali sama ataay bi quoi. <laughs> sama kaas bi xam naa war na sedd nag ah. sedd na bàyyi ma tàngalaat ko. waaw xaaral ma jox la nga tàngalaat ko kon. ok jaajëf. waaw kon jaa ngeen jëf gars yi waay.